yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf koy seet ba ca biir coronavirus bi umpalewul ak malakal mawti ndax li muy faat bari ci réew mi ubbi l'observateur ñeen fukki doomi aadama ak juróom-ñeent faatu nañu ci réew mi ci mbas mi fan yi ñu génn keroog samedi rek l'observateur nee nañu xamle nañu fukki bakkan ak ñett yu corona bi jël soleil national nañu du ci samedi ji rek waaye ci samedi ji ak ci gaaw bi maanaam week bi li ñu am ci réew mi ci journal bi tuddee Vox Populi nañu 19 décès 33 yu yees lii mooy bilan mbas mi ci week bi liise ko nañu moom koy wopp ji mi ngi fàtt lu mu mën di dem ci réew mi di gën di yokk di gën di law 19 décès ci benn week ñi coronavirus bi tëral ci réew mi ba ñu nekk ci loxoy docteur yi mu di malade yi nekk sous traitement yéen bi nee nañu seenub lim bu doon benn la yokk na ba ci fukk ak juróom benn ci ñeen fukki fan yi assemblée nationale di ñu wax ci journal Le Quotidien ne dafa am ay cas garaaw amit ay cas sévère li nekk ci centre de traitement yi ci ay cas sévère nee na jege nañu ñetti téeméer waa SAMES dig syndicat gu jabote ay fajkat ci réew mi ñoom li ñu jàpp moo di communication buy déng-déng bokk na ci li yokku joote ji docteur El Hadji Mamadou Ndiaye njiital prévention xëy di waxtaan ak waa Source A ci mbas mi ak ci vaccin yi ñuy séntu docteur Ndiaye nee na bu weesoo programme élargi de vaccination amul mi bu amee sañ-sañ mbaa dee dañoo bëgg a jëfandikoo ñàkk yi il faut que dañuy waajal ngir su ñàkk ñu mën leen a denc denc ba war ñu wàcc wopp ji te war ci lenn lu mu waral ci réew mi yëral xët mu njëkk Sud Quotidien yéenekaay bi bind na ne Macky Sall ma ngay ñaq-ñaqal député yi ci assemblée nationale di leen accélérer ngir ñu wote nu mu gën gaawe loi bi jëm ci état d'urgence beeg état de siège ak modification di jooye yi ñu ci bëgg indi loi boobee yéenekaay bi nee nañu tey ji ci suba ci la ci député réew mi di xëy réew mi Quotidien nañu nar nañoo quotidien tegal ñu ci ne fan la ko jant bi di bu bari moo réer ca chambre de commerce bu Ndakaaru lii quotidien mi joxe xibaar bi wax ñu ne réer gi waxin la rekk waaye def ca chambre commerce ca la mbir ya feeñ kuy làqatuy màndi booy jàng di feeñ loolee tigi moo dal ñi ci l'observateur ubbil yéenekaay bi ay doomi diw maanaam fils à ay xale yu jigéen yu am jëkkër ak i diplomate journal bi nee nañu ñoo organisé ab piscine party ci Almadi ci digg jamonoy état d'urgence gi nag sàngara jaak misik ba tuxum chicha yi lépp doon jàllaañoo gendarmerie bu Ngor moo fa wàcc arrêté leen jàpp ci ñoom ñeen fukk ko tey ji ca lañ leen war a def